A young Nigerian is using his skills to invent fashion drums into uh, hand to help control the spread of the covid pandemic. He uses waste materials to make good business during the uh, period of covid Above all, the young man is happy that he is contributing a part in the fight against the coronavirus. Here's more details of that. Adams Bangwoshe is only 10 months old and recycling. and business is really booming for him this season. He reuses waste materials such as tire and metal drum in making essential products. But the specially carved hand drums with fitted soap dispensers have now become his signature. I felt I could explore using my creativity and artistry in creating something that can be essential to curb the spread of COVID-19 in Nigeria. Those drums are not useful to the manufacturers that, use the product in them. So as a recycler, instead of them bending them or selling to those that will turn them into something not valuable, I buy from them, then I reuse them in making something more useful and essential. Bangbushi does the entire work from scratch to finish himself, with help from some friends. He made his first hand drum for personal use by improvising with hammer and chisel for getting a grinding machine. After posting images of the outcome on social media, he started to get several orders, and from what started off as a single trial, his hand drums are now one of the most sought after by major stores and supermarkets in Lagos. My target audience are store owners, schools, factories, markets, and places that people visit often to get their daily needs. So what makes my mobile Washan Basin special is the fact that it has an infrared control tap. one does not really need to touch the tap for it to be controlled and it is mobile meaning people can bring it out in the morning and bring it in the evening. Pangbushi says infusing painting on the drums is a deliberate attempt to encourage hand at a critical time like this by making it appear fashionable. He's happy that his innovation is not just fetching him money, but helping to stop the spread of the coronavirus in Nigeria and keeping the environment rid of waste. waaw mu ngi noonu ndaw yi Afrique di wane seen bopp ci eh, tolluwaay eh, àdduna ci coronavirus yi xëy mi ku ne di génne eh, sa xam-xam ca sa sa sa creativity ci ni nga ko mën a defee jamono ji léegi léegi ñu ngi ko doon wax ci réew mi waaye gis nga ndaw mi tamit moom ci xalaatam ci li nga xamante ne mooy waste material si nga xamante ne daanaka kenn bëggut ko loolu lay dell di jënd di jëfandikoo si gëf ci xam-xam mm-hmm. xëj na boo seetaan image si danga wax ne lii moom dafa yomb waaye gis nga nu ngi koy designé ba mu rafet am ci nag moom tamit mu am gis ci boppam kon nañ ko waxee waaye muy njëriñ tamit réewam ci xeex mi dimbale nii ci ci ci raxasu mi ak yu mel noonu foog naa ne euh, wax bi daal benn la ci ci ci taxawaay ndaw yi ci Afrique dafa mel ni. mu nekk lu am solo muy xalaat yoo xam ne si nekkoon ne fukki at si gannaaw mu ngi woon si boppi ndawi Afrique yi kon réewi Afrique yi bari am na fu ñu romb. Mm-hmm. kon nag corona bi comme noo ko waxee surtout su danga ko dee wax. Mm-hmm. am na lu bëri lu mu def loo xam ne nii ubbi na xeli nit ñi ubbi na boppi nit ñi pour ñu gis ne am na si lu nga xam ne. yow ñun ñoo ko war a def taxaw ñoo ko war a taxaw ñoo ko war a defal suñu bopp gis ne dina nekk yokkute si ñun ak si si réew mi tam ba am solo la dafa mel ni. Mhm. ndawi gàcce ngaaraama ndawi Afrique yi parce que am gën ñu am fulla leen ak fayda waaye gën leen ko am si biir corona bi parce que ubbi na bopp yi xel yi ba nga xam ne ni bëri na lu bëri lu nga xam ne ni incha allah si jumtukaay. si réew yi bëri dinañ dinañ gis ne seen ndaw ñoo ko faral di def ñu ko jëfandikoo si biir réew mi. exactement te loo rawat loolu ñu ngi gën a ñaax tam. ndawi Afrique yi waaye am na solo Mariama Sànq yaa ko doon wax ndaw euh, tey ñooy màggi ëllëg te gis nañ taxawaay ndaw yi euh, ci jamono bi nga xamante ne xëj na si leen leen gën a soxla sax euh, te lii wane na daal yaakaar bi ñoom la te ñun dañu war a yaakaar suñu bopp. Mhm. bañ a teg yaakaar bi feneen te ku ne dafay wane lii buñ jàppee day dem te foog naa ne ku ne boo bàyyee sa waat ci côté boo ko mënee rek. Mhm. buñ boolee mu yomb te tamit mu nekk impact bu am solo si société bi waaye ci rek coronavirus bi ñëw na de dafa bonde waaye am na ay good side parce que dafa ñëw am african si suñ yuut si dañ yaaga di defar ay ay ay things yu nga xam ne mhm. du dee musa feeñ kenn du si daan bugg a kenn du ko dee bugg a xam sa wala kenn du ko dee bugga a feeñal waaye because of this coronavirus yaa ngi gis seen invention si yaa ngi gis ñuy defar drones ñuy defar woon washing hand ñuy defar lu nekka lu nga xam ne adduna bi seen boppa dañ ko paree jël léegi dañ ko paree xool paree koo gis mhm. so man coronavirus comme dégg bon na de mu ngee because mu ngee take lives mu ngee stop people from working ak yooyu noonu mhm. waaye di other impact tamit soo ko seetee it's a good thing ndég mhm. lii lii it's a good thing lii comme for example right now lii wash hand basin si imaginal a mobile wash hand basin utee nañu washhand basin suñ fi daan am yi ñu tubaab daan defaral boo xam ne boobu soo ko fixé rek jeex na kenn ko ranal boo ko ranalee rek mu yaaxu bii nag foofu fu la neex nga yóbbu ko sooy tukki dem dex bi sax nga ko gàddu yóbbaale so which means ne comme the African minds dañ lay xalaat lu ëpp sax xel xalaat xel li njëriñ mhm. waaw rek la xel li njëriñ so comme lii daal man daal lii su si su su mënoon a ñëw Gambie sax Washan Basics yi lay jënaat. pour suma ah. kër du ma jëna bu mu nekk lu am sax. Mm-hmm. Uh, corona ak bagage yu àndal. Mm-hmm. bu corona demee itam. ñun dañ ko soxla. parce que dimbalante. Mm-hmm. solidarité loolu. islam daf ko santaane dañu fa a mm-hmm. seet ak yëpp mm-hmm. islam daf ko santaane te dafa baax si nit kon ay bagage mm-hmm. moom na dem waaye ñi ànd ak ay bagage am parce que am na njëriñ dafa mel ni beneen beneen la fi bëgg indiwaat solidarité bi ngay wax euh, luñ yàgga dégg la te diine daf ko yàggaa indi euh, ci ci ci ci ci nuñ ko waxee waaye tamit seet moom kën a xam boo seetu doo mën a jaamu yàlla yu mel euh, te loolu ci ci ci gis nañ corona indiwaale ko ci ci jamono ji waaye daal ñu waroon a yàgga dékkee la waaye jam am naa yaakaar ne daal ay mën na am changes dana am. léegi loolu peinture yi sax a rafet waaw liñ peinture bi bëri boo ay seetalaa yooyu la naa raaw léegi nag su ifin corona su demee ndem si yàlla corona su demee sax mm-hmm. war nañ gis ne fépp fu nga xam ne juróomi nit war nañ fa nekk di bokk li ñoo léegi. waaw war nañ fa am raxasukaay bu mag boo xam ne. te te gis nga ñun nuñ dëkkee waaw ñun nuñ dëkkee la sax socialisation boobu li ko war a import Gambia. Mhm. indi ko fi. gis de. non non nañ ko defaral suñu bopp mun nañ ko defaral suñu bopp kay. Ah, ah, Mariam waaw loolu la. waaye xam nga dama gis ak ñu a <laughs> la bii moom yëngal na bii ñaar rek baax na si. <laughs> waaw mu ngi te waaw te lii am nga fu nekk nii xam nga xam nga xam nga import bi ngay wax boobu lañ bëgg a eh, wax ma la sax eh, daxal complet waaye nañ ko wàññi trop mm-hmm. ko wàññi fu mu nekk nii eh, comme li ñuy wax ne ku ne ku ne sa bopp foofu lañ toll gis nga right now li ñu wax répp ci health sector bi ak yu mel noonu fu mu nekk nii toll nañ ci gis nga kilifa yi sax yëg nañ ne fu mu nekk nii am na li nga xamante ne jot na pour ñu cee pour ñu cee gën a taxaw mm-hmm. parce que xoolal recently rek bagage yi nga xamante ne yu dugga si si Gambie jógee ci biti mhm. war a ñëw ci health sector bi démba mhm. démba rek la mujjee bagage yi mu nga mujjee mujjee yeggsi fii loolu yëpp mënoon naa am well before corona di ñëw waaye kenn ku ne ci adu sa bopp mhm. waaw yow sa li la yokk rek ngay ut faalewloo ki nga tànn ak yu noonu bariwul waaye tey gis na loolu yëpp mu ngee sansé garab yi bu daan jógee fu nekk bi foo corona di si yëg dara duñ si xam dara mm-hmm. dafaa ñëw rek ko si ko fa yow tasaare ko si lopitaan yi mm-hmm. bon xoolal ñëw dinañ si teg seen bët gis ko vid ñu vidéo ko ñu yóbbu ko fa su suñ ko delluwaatee si biir askan nañ si xam dara loolu yëpp dafa war di leer si si boppi askan bi parce mm-hmm. ñoom ñoo ko moom te xam naa ne dina dina continuer dem comme noo ko dee waxee rek